julli ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci moom sopp ko bëgg ko <clears throat> tegoon tànkam nga teg fa tànk sa tànk di ko xalaat di ko tudd texe aduna ak àllaaxira ga yokkute aduna yokkute àllaaxira kon nag ñuy julli ci moom moom muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu jëralee borom bi subhaanahu wa taala muy julli ci moom moo koy malaakam mu invité ñu pour ñuy julli ci moom loolu du hasard kon nag eh, ñaan yàlla ñaan yàlla ñu koy gën a bëgg di ko sopp fu ñu mën a toll suñu xol suñu xalaat suñu deru yaram suñu deretu yaram suñu ndoxu yaram suñu yuq yaram karaw yeeg yëpp bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moo jot a bëgg kon nag ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di nuyu ku nekk ci yéen di ñaanal ñëpp jàmm Hadj Malick mi ñu fekk si suuf ñoom soxna Adama ñoom Alpha ñoom Ibrahima ñoom ñing macha allah ñoom Fatou. yooyu ñëpp ñu ngi leen di ziara ak képp koo xam ne yaa ngi wàcc si eh, macha allah ci ci groupe gi eh, liñ fi wàccee yëpp ñu ko fi wàccee njëriñ dong la yal nañu yàlla may dégg ak topp mbokk yi ñu ngi woon ci julli macha allah nga gis julli ah ñu ngi ci ba léegi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko daan defee nee nañu ne wax naa leen da doon jàpp jàppam ko rafet googu ndeysaan préparé ko lool nag waaw ci jaaraat rek balaa mu jàpp daan na soccu balaa muy julli daan na socc nee na bu defee ay naafilam macha allah bu defee loolu ba pare lan moo des dem def ay naafilam wala balaa muy def ay naafilam da doon solu ba jekk macha allah mbokk yi mbokk yi julli boo koy def da nga war a solu waroo sollu xeeñ waroo sollu xasaw waroo sollu setul mbokk yi du demee noonu ndax kat ci la bokk ci col gi ci la bokk ndax kat borom bi subhaanahu wa taala moo ne xuzu zinatakum inda kulli masjidin ay waaye day leen toiletu day leen rafet day leen nice bépp place bu ngeen di jaamoo yàlla dee leen fay yóbbu lu set liggéeyukaay yeeg jaamu yàlla ji rawatina jaamu yàlla ji ndax mbokk yi yére yi ngay sol macha allah di ko jaamoo yàlla na nga fexe ba boo na nga fexe ba mën koo sol booy dem ci nit ñi booy dem wuyu ji président de la république yére yooyu ngay sol yu mel noonu nga war a sol macha allah sino rek loo fi bàyyi moom da ngay génn àdduna ñu summi ko sànni fële summi ko sànni fële saan kon nag booy julli sol lu am solo lu rafet rafet am xet gu neex am na solo bu baax a baax ndax am na koy waxal mooy kon borom bi subhaanahu wa taala jamono boo ngay julli moom rek ngay waxal waxaloo kenn nag kenn waxaloo moom moom rek ngay waxal kuy waxab ku toll nag borom bi subhaanahu wa taala ah yaakaar na war na am noo war a mel ko yonent bi noonu la daan def macha allah nee naa bu doon naafila du liqaam naafila kenn du ci liqaam macha allah kenn du liqaam ci naafila farata yi la ñuy naafilaal macha allah julli farata yi la ñuy naafilaal la ñuy ci la ñu kii liqaamal farata maanaam eh, liqaam laa bëgg a wax naafila kenn du ci liqaam naafila kenn du ci liqaam julli farata yi la ñuy liqaam <clears throat> macha allah foo jublu penku la daan jublu ndeysaan di wax baat yi may wax muy liqaam góor dina ko def jigéen dina ko def muy wane ne lépp luy góor def si julli rek jigéen da koy def ba mu des wax bu baax ci kaw jigéen kenn du dégg baatam buy julli même bu dul julli sax baatam am na xam ne waru faa yuuxu nag di macha allah yooyu yëpp lislaam da ko tere solool sol lu jekk bu dee jigéen nga lu fat lu diis sa loxo bañ a feeñ maanaam say yaram dara bañ se feeñ lay war a feeñ daal mooy kanam ji ak takkukaayu jaraya ak euh, macha allah ma euh, addal wajjula kafay na ndeysaan kanam ga ak tenq yi rek mooy war a feeñ wala bu loolu leneen warul feeñ lu fatt nag boo julleeg boo di amoo julli boo de boo boo jullee lu yaraax amoo julli boo jullee lu jotul amoo julli yow jigéen ndax kat kulluha awratun ma addal waji wax nañu loolu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sol lu rafetam googu ndeysaan peñe bopp ba nag ba mu baax macha allah am xet gu neex ah macha allah baat yi la doon wax buy liqaam allahu akbaru allahu akbaru an la ilaha illa allah ashhadu ashhadu kenn wa ashhadu ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulu am na ñu naan sururu rasulu lu lu dégg nga rasulu hmm? muhammadan rasulu laa rasulullahi rasulullahi du rasulullahi rasulullahi hayya ala alsolati hayya ala alfalahi qad qamati alsolatu ñaari yoon wala benn yoon lu ci wax baax na allahu akbaru allahu akbaru laa illa allah sayyidina abdu rasulullah njool ma ko daawul wax allahu akbar allahu aku doo daaw ko wax du wax allahu aku du wax aku du wax baar du ko xëcc akbar voilà allahu akbar noddu liqaam allahu akbaru dégg nga loolu la du wax kenn du wax akbar kenn wax aku dégg nga akbar akbaru akbaru liqaam yeneen kabare nag allahu akbar akbar dégg nga macha allah jàng na macha allah lu lu des mooy kabbar kabbaru armal googu di farata bu njëkk lan lay wax allahu taxaw na tuuti fa yéene naa julli suba ndeysaan ci xol xel ba soog a wàccee loxo yi na akbar du wax ñaan googu nag subhanaka wala subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa taala jadduka wala ilaha gayruka audu billahi min shaitanir ndànk daal di jàng fatiha am boobu comme ko waxee woon dégg nga bu paree ci fatiha bi bu mu man moom lay jàng macha allah e, daal di jàpp yo fa lañ yemoon wax lan allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wala subhana ñett yoon wala lu ko ëpp boo ko waxee ñetti yoon baax na boo waxee lu ko ëpp baax na lan moo des booy sigi nga ne sami allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayiban mubarakan fihi loolu fa la ñu yemoon yaakaar naa lan moo des mu suju mu rug dem sujoo ci bu jàppi om bi nag macha allah day jàpp omam du sëgg ba ko gis xam ne ndiggam kiwul waaye du sëggit ba nga gis sëggul ndigli day yem cocc jàpp oom yi da koy jàpp nag waaw ndeysaan sëgg xool kanamam nag fi nga xam ne fa day teg jéewam bii lan lay waxe ji allahu akbar su joot wax subhaana rabbiyal aala wa bihamdi baax na wala subhaana rabbiyal aala benn baax na subhaana rabbiyal aala subhaana rabbiyal aala subhaana rabbiyal aala bu neexe mën na wax subhaana rabbiyal aala wa bihamdihi waaw baax na subhaana rabbiyal aala wa bihamdihi subhaana rabbiyal aala wa bihamdihi ñett yoon wala lu ko ëpp mu siggi toog wax allahu akbar buy jóg na allahu akbar toog ne allahuma igfir li warhamni warzuqni wahdini waafu ani wa aafini wala mu wax rabbi igfir li warhamni ci lu gën a gàtt waaw waaye daal boo toogee am na looy wax loolu ngay wax li ci gën a gàtt wala rabbi xfir li warhamni moo ci gën a gàtt soo mënee wax lépp ni mu ko doon waxee it baax na rabbi xfir li warhamni warzuqni wahdini waafu ani wa aafini waaw mu sujootaat buy sujooti wax allahu akbar mais buy sujoot nag day teg jéewam bii ak ak bakkanam bi ci suuf ak tënxam yi mais du lal loxo yi du loxo yi maanaam kuddu bi du laal eh, suuf si déedéet ñaari ba loxo yi rek ñuy dëpp loxo yi ñooy dëpp mais li ko dalee conc ba commencement si takku jare ba ci conc ba loolu du laal suuf dégg nga daal di nag eh, eh, tànk yi aussi du laal biir bi kon nag yooyu yëpp jar naa bàyyi xel gis nga julli tànk du laal biir bi waaw tànk du laal biir bi macha allah kon. noonu la daan sujootee saa yi sujootee loolu lay wax subhaana rabbiyal azi ala bu toog ñetti yoon wa di bu toogi mu wax rabbi xfir li war xam ne doo ci moo ci gën a gàtt e bu jogaatee indi ñaareelu rakkaam e jóg allahu akbar noonu la koy defee jàngaat fatiha e ak saar bu mu mën wala aaya alxuraan bu mu mën a mu defaat comme ni mu defoon ci premier rakka ba wax yooyu mu war waxoon ca rakka ya daal di toog nag am na ñaari rakka dafay toog bu tooge day taaya taaya yaa ngi nii mbokk yi attahiyaatu lillahi azzakiyaatu lillahi atayibaatu salawaatu lillahi assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa alayna wa ala cibaadillahi ssaalihiina ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu laa sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jaye ndeysaan am na ñaari rakkam yooyu taaye na boole ko yëngal baram mi wala mu joxoñ xocc dégg nga ah, bu jógee lu muy def jóg def ni mu defoon ci yeneen rakk yi wax ci li mu doon wax daal di jàng fatiha kese nag foofu mbokk yi ñaari raaka yi ngay njëkk a julli fatiha ak saar la moo xam ci kaw nga koy moo xam ci suuf mais yeneen yi nga xam ne moom moo mujj yooyu fatiha rek ngay jàng macha allah fatiha dong ngay jàng macha allah kon nag e, su ko defee nga def li nga wax ci rak yi li moom ngay waxaat rek dégg nga bu dee yow dong yaa julli da ngay wax seen allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarak bu fekkee ne imaam bi la yow da ngay wax loolu waaye e, imaam moom. sami allahu liman hamida mooy sa sami allahu liman hamida day ñëw ci julli mbooloo incha allah mais julli yow kenn la ñuy wax gum nii incha allah rabbi su ko defee bu àggee rakkay bu àggee moo xam suba la doon wala tisbaar mbaa takkusaan lu ci mën a am rakkay àgg na lan moo doon dafay taayawaat waxat taaya ba waaw ba pare wax salaatul ibrahimiya nag foofu nag bu ko waxee day sëlmal kon nag taxiyaatu lillaay ñaare rakka boo ñëwaatee nga waxat taaya boobu tahiyatullahi boobu ba pare encore nga wax salaatul ibrahima mooy allahuma solli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sollayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fi l aalamina innaka hamidum majid mu ñaan bu mu ci teg baax na rabbana atina baax na wala nga ne yàlla musal ma ci sawt nauzu billahi min azabi jahannam wa min naar comme yooyu wa min azabi alqabri wa min zulmati alqabri wa min fitnati alqabri wa min fitnati almahya wa mamati wa min fitnati almasih dajjal wa min azabi naar wa suil masir allah nga ñaan ko bu la neexee nag soo waxee sala ibrahima nga teg si ñaan goo mën daal di sëlmal nag wax assalaamu aleykum kenn du wax ah salaamaaleykum kenn du wax salaamaaleykum a bi il faut mu ñëw booy nuyu booy sëlmal yëpp asalaamaaleykum kon wóor na am na koo xam ne mi ngi daan julli ba léegi sëlmalagul ndax ni mu koy waxee du noonu salaamaaleykum kenn du wax déedéet ah salaamaaleykum kenn du ko wax dégg nga asalaamaaleykum benn yoon wala nga ne asalaamaaleykum wa rahmatullah tourné sa côté droite boobee ñëwaat si kanam daal di mujjee côté gauche kon jullee ngi noonu sëlmal nga jàmm et macha allah li si des mooy lan. Ah, wax li nga xamante ne mooy nag eh, allahuma anta salaam dégg nga wa minka salaam tabaaraktu ya zal jalali wal ikram wax subhanallah fanweer ak ñett walhamdulillah fanweer ak ñett wallahu akbar fanweer ak ñett waaw nga ci teg laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun ndeysaan julle ngoo ko ñaan sa aajo ñaan loo soxla and yàlla may ñu dégg ak topp macha allah di jéggu ci bu gudd bi dañu jaaraatoon ci leçon bi rek moo tax di nuyu ñëpp soppee nabi di ñaanal ñëpp jàmm yal na yàlla ñu sutura ñu nekk fële di soxna Adama yi macha allah yéen yëpp ñu ngi leen di jaare ñoo yéen ñëpp képp ku nekk bitim réew di jaare diaspora bi ñu solution yëpp yal na yàlla dafa leen jàmm macha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah